situation bi nga xam ne nag euh, moo fi nekkoon ci wit euh, ba léegi mu nekk 12 euh, heures jot na waaye ba tey ñi nga xam ne ñooy étudiants yi bàyyiwuñu benn yoon ni ngeen koy gisee noonu ñu ngi gën di fol ay xeer di sànni waaye itam di gën a taal li nga xam ne moom mooy ay pëna gis nga étudiant ba lay jonkoñ ci suuf moom depuis sànq dafa mel ni moom rek mooy Euh, sànni waaye moom tamit moom mooy euh, sotti euh, moo xam li muy sotti rek ci pneu yi ba pneu yi daal di tàkkaat waaye daal ñoom ñu ngi ci biir ah, ci pavion ba nële nag dina sori bu baax ñu gis ko waaye étudiant yu bari bari ñu ngi taxaw foofule. Mhm. gis nañ ko siwo siwo daal lay yore <laughs> siwo lay yor. bu ñëwee dem wut ay xeer am na benn étudiant bu gaañu fële ji bi gis nañu fee ci ginnaaw am na ñoo xam ne ñu ngi ko yëkkati di ko yóbbu fële na le am na euh, étudiant bu fam gaañu gaañu jigéen wala góor xamaguñu dina jafe nag pour ñu euh, mënuñu accéder euh, ñun fi nga xam ne moom mooy ci biir campus bi waaye daal gis nañu koo xam ne ñu ngi ko yanu di daw ak moom dinañu jéem a xam après bu fekkee ne rek lan moo ko da waaye daal xale jigéen ñoom ñu ngi yuuxu Euh, ci biir euh, fi nga xam ne moom mooy ci ci ci biir campus bi euh, sànni na lacrymogène moom mu daal di koy capté sànniwaat ko loolu daal lañu ñu mën a wax ne tey jii moom moo xew ci université Cheikh Anta Diop seen siwo yi nag stratégie bi ñu am mooy dafa am ñoo xam ñoom ñoo nekk ci suuf siwo yi nga xam ne moom mooy siwo ciment wala siwo yi nga xam maçon moom la ñuy liggéey yëpp muy siwo peinture moom la ñuy jël def ci xeer ba mu fees yóbbu voilà gis nañ ko dañ ñi ngi policiers yi ñi ngi sànnante ñoom it ak ak ñoom waaye policiers yi ci jamono ji léegi ñoom it xeer rek la ñuy jël euh, di di sànnante ak ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi ba pare lacrymogène yi si ñoom li ci doy dañ koy sànni saxaar bi day bëree bëri laata muy saf waaye keneen nag ki ngi ne borom trait yàgg na lool fii euh, di defar xeer moom dafa mel ni moom mooy euh, kiy transporté yenn xeer yi ci kaw ñoom tam stratégie daal lañu la ñu amal tey sio bi bu feesee mu sotti keneen ñëw am kuy yéegal amit koo xam ni moom mooy euh, sànni côté bee lacrymogène yaa ngi ñëw waaye ak lu ci munti am daal mooy lacrymogène yi saf na loolu waa ji de policier yi ñoo koy moom. moom wax nii ji bi dañu gis ne dafa mel ni kooku nag sonal na leen bu baax parce que dafa jàkkaarloo ak ñooma ah soxantewul dara dara ak ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ñu ngi nag jéem a dugg da l'autre côté comme ah, beneen côté bi ne waaye borom trait bi daal xam naa ne loxo bi jub na bu nekkoon ah, policier bu nekkoon ah, ni ñu koy waxee. Euh, joueur moom ku mën a tiir lay nekk ndax bu sot sànnee xeer dañu ba si tànk policier yi waaye fu ne xeer bu ñu sànni rek policiers yi fal ko ñoom it euh, daal di sànniwaat li nga xam ne euh, moom mooy xeer bi ñu sànni waaye gis nañu borom lu jaune lële moom it mi ngi taxaw yëkkati ñaari loxo yi moom sànq ba léegi mu ngi <laughs> sànni xeer day jékki-jékki rek yëkkati ñaari loxo yi moom tamit waaye policier mi ngi fal xeer ji bi gis nañ ko ñu ngi fal xeer. bu ñu sànnee lacrymogène ba sonn rek ñoom it xeer la ñuy jël gis nga ko daal di daal di daal di sànni mais mel ni booy bi moo gën a jub loxo jonkan na sax fi nga xam ne mooy ci euh, mbànd moom nga xam ne moom mooy euh, défense am. xeex bi yàgg na tey ñu am seen ay stratégie yu bees yoo xam ne ànd nañ ko muy étudiants yi de même Euh, ñi nga xam ne ñooy force de défense yi nekk ci biir euh, université bi daawuñ leen gis nag ñu dépassé porte bi waaye tey euh, dugg nañu na ci biir université bi naam sax egg ñëw ba ca biir a waaye dugg nañu ci biir ñu sànni sànni nañu waat grenade lacrymogène waaye taxul moom Euh, fu mu nekkoon mu jóge fa ba léegi mu mel ni moom moo nekk cible policiers yi daal ñu ngi sànnante xeer ak ñoom. Hmm. gis nga mhm. euh, essence la ñuy sotti euh, ci li nga xam ne euh, moom mooy pneu yi waaye ñi ngi tamit sànni ci biir campus bi ndaxte dafa am ñu nekk foofu ñoo xam ne ñoom tamit dañuy sànni li nga xam ne moom mooy ay xeer takk der yi borom lu jaune yi nag gis nañ ko di leen fàttali rek ne. Euh, ñoo ngi fii ci université Cheikh Anta ak euh, ginnaaw euh, li nga xam ne moom mooy étudiants yi di xeex ak takk der yi di ko waral nag mooy nee nañu dañuy jàppale seen naataango yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofule. ca. am na ñu blessé maa ngi ko doon wax léegi gis nañu sànq koo xam ne euh, yëkkati nañ ko ngir. Euh, yaa ngi jël ki nga xam ne blessé na ambulance mi ngi woon mi ngi woon ci biir mais dafa mel ne étudiant itam euh, ñi ngi gën a ñëw parce que sànq gisoon nañu ñu demoon mais fi mu ne nii comme dañuy jékki-jékki rek ñëw en masse comme ni ngeen koy gisee nii ci image yi xamoon ko ni kon daal loolu. ñaar ñoo am euh, gaañu gaañu jël nañ leen parce que bu ñuy fàttali ne ambulance bi mu ngi ci biir. mais ambulance baa ngi ah? ambulance baa ngi ne ngeen di séen waa ji bi may signaler que ne ambulance bi mi ngi ñëw am na ñaar ñoo xam ne am nañ ci ay blessures parce que sànq rek maa ngi leen doon wax ne am na koo xam ne ñaari ambulance moo ñëw junior moom moo gën a njool moo tax moom mooy gis li nga xam ne moom moo ci nekk. ñaari ambulance euh, ñoo daal di ñëw jël si ñi nga xam ne am nañu euh, gaañu gaañu waaye gis nga ñoom essence bi tam ñi ngi laajte fa nañ jëlee essence bi ndax nekk woon loo xam ne euh, pare woon nañ ko wala déet ah waaw parce que ci immeuble bi nga xam ne fii la ñu nekk gisoon nañu sànq ay xale yu jigéen yoo xam ne ñu ngi doon yuuxu peut-être que ne lacrymogène yi moo leen lool ñu ngi doon def signe à ce que Euh, ambulance wala euh, koo leen mën a wallu euh, daal di ñëw peut-être que ne loolu moo tax ambulance bi nag ambulance su centre des œuvres universitaires de Dakar la mooy ambulance bu COUD bi moom moo daal di ñëw rek est-ce que am na ñu xool. muy ay xale jigéen yoo xam ne sànq ñu ngi yuuxu ndaxte dañoo sànni woon grenade lacrymogène mu dugg fi nga xam ne euh, moom mooy seen euh, néeg ñuy yuuxu peut-être que ne parfois bu fekkee ne danga am yenn feebar yi wala nga am li nga xam moom mooy asthme doo mën a inhaler euh, li nekk ci grenade lacrymogène bi parce que quoi qu'on puisse dire nekk na lu saf loo xam ne pour dékk ko c'est tout un problème gisoon nañu ñu yuuxu nag waaye ambulance bi ñëw na ñu xaarandi tuuti rek yéen ñuy seetaan. voilà xaaral ma tegal leen ko nii duñ gis bu baax sama kii sama internet yi. Mhm. Euh, di leen fàttali rek yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan ñu ngi fii ci université Cheikh Anta Diop ginnaaw ñaari fan yi nga xam ne ñu ngi koy euh, xeex euh, décrété woon ko muy 48 heures te ne woon dañuy jàppale seen naataango. yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofule ca Bambey te ñu gis na nag am na ku fa faatoon gis nga ko ambulance bi mi ngi na leen euh, génne nañu euh, ki nga xam ne am na ay gaañu gaañu la euh, jigéen la wala góor lu ci munti am ñoo ngi ne di ko andi si pancarte bi teg ko ci di ko andi waa Croix-Rouge nag ñoom ñoo nekk noonu le di di di andi rek. voilà dinañ mën a xam exactement ji bi boo zoomé rek ndax ku jigéen la wala ku góor la yéen a koy seen dafa mel ne ku jigéen la voilà moom la yëkkati noonu jigéen la ku jigéen la mu ngi ne waaye taxul xale góor yi ñoom ñi nga xam ne ñi ngi demaat de parce que dafa mel ne du kenn ndaxte euh, ñu bari ñoo nekkoon foofu foofule Euh, ñu bu fekkee mun nañu may ambulance itam à ce que mu jël malade yu yóbbu ko rek parce que dañ comme nekk nañu ci ay jafe-jafe euh, dina baax ñu yóbbu leen def les premiers soins euh, ci beneen côté bi it dégg nañu tiir yi nga xam ne moom moo moom moo nekk foofu muy porte centrale bi di fàttali ne nag université Cheikh Anta dafa bari loolu ay ci corniche bi la waaye comme ni nga ko doon gisee ci image yi ambulance baa ngi taxaw jot nañoo dugal kenn am na keneen am na ñaar ñoo xam ni dugal nañ leen euh, ci euh, fi nga xam ne moom mooy am na ñeneen nañu ne ay jigéen lañu de matañ tey nekk nañu euh, cinq personnes cinq xale yu jigéen lañu dugal ci ambulance mooy rek ñi ngeen déggoon sànq ñu nekk di yuuxu ci kaw dafa am ñu des walla ñoom sax ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi wax gis nga ñi ngi taxawoon di wax ne ah, pour ñu may leen à que rek ñu évacuer maladie waaye dafa mel ni étudiants yi dégguñu loolu parce que ñi ngi gën a di sànni ñuy fàttali sax lu mel ni en temps de guerre wala yooyu ñii nga xam ne ñoom ñooy ay médecins wala croix rouge ñoom euh, mun nañ leen épargner euh, ci euh, jafe-jafe yi parce que bu amee ay blessé wala koo xam ne soxla nañu évacuer ko nag ñoom rek ñoo fi sës ngir mun ko yóbbu donc ambulance baa ngi noonu di waaj a dem waaye den fàttali daal juróomi xale yu jigéen dugal nañ leen si. ngir rek euh, daal di leen di yóbbu fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñeneen ñi desoon ñu ngi leen di wax sax gaaw leen ngeen puus voilà ba tey ñu ngi ñu ngi sànni ñi ngi wax ne ñi nga xam ne nag ñoom ñooy euh, oto bi xaar leen ko. waaw yóbbu nañu juróomi xale jigéen yoo xam ne amoon nañu jafe-jafe ci kaw muy xale jigéen ñi dañ doon xaar ambulance bi dem rek ngir ñu commencé waat gis ngeen ko noonu ñu ngi commencé waat euh, sànni <laughs> nga xam moom mooy xeer waaye takk der yi ñu ngi sànni grenade euh, lacrymogène ñu leen di fàttali rek ne ñu ngi fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar 8 ba léegi nag étudiants yi ñu ngi xeer. ak ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi di fàttali fii Bambey euh, tey conseil de discipline bi sax dina am ñoo xam ne ci ay étudiants na leen déglu waaye tamit bu 15 heures jotee ñoom étudiants yooyu dinañu amal ab point de presse boo xam ne euh, dinañu def foofu ci biir université bi euh, ci université bu Saint-Louis tamit gis nañu ne tey jii ci suba li am fii ci université Cheikh Anta Diop moom moo am foofu ci université bu Saint-Louis li ko waral nag du lenn rek lu dul. ko waral nag euh, du lenn lu dul euh, ci université bu Bambey gis nañu ne euh, benn étudiant moo fa faatu woon di Seydina Alioune Ndiaye te ñu wax ne nag la ko faat du lenn lu dul lekk gu bon goo xam ne lekkoon na ko muy intoxication alimentaire ñu daal di koy rek denc boromam ci loolee étudiants yi daal di mer lool ne loolee warula am ndaxte. Euh, li ñuy wax ne moom moo ko faat muy intoxication alimentaire loolu la waaye ñun ñoom nag ci kayitu docteur bi la ñu ci gis rek mooy euh, dafa amoon hépatite loolu moo tax mu faatu étudiants yi nag daal ne ñoom lumière la ñu bëgg gis nga ko ñoom euh, am na lacrymogène yoo xam ne sax dañu ko sànni tàkkul mu mel ne nag ñoom ci étudiants yi loolu la ñu téye te tamit. ñëpp xam nañu ne euh, wóorul benn yoon parce que euh, lu jëm ci ay grenades lacrymogènes ak yooyu warul nekk en possession ci nit koo xam ne euh, civil nga lu ñu xamee lacrymogène mooy ñii nga xam ne ñoom ñooy takk der yi